rëy costume yàlla la koo sol daanu. costume yàlla ko ko sol daanu. waay waay ñun ay ndaw lañu. dëgg la. c'est ça nit ñi li ma la waxoon sax dana malaaka yi nit ñee leen gën. man ndaw laa. dañuy dañuy dañuy kaf. dañuy xam nga ku mootul son excellence. ku mootul gars yi ay son excellence la ay directeur ay président. di nga offensé koo xam ne dootoo ko def. gars yi nag ñoom ñoo lay yëkkati ba nga foone yow nekkatoo nit ba caméraman bu ñëwee sa déllu ñu nga waa oui ça man ba nga ba nga dugg si di ma gis di ma ñëw loolu nga def ngir góor yàlla di gentleman chauffeur ma ne non non non mais ar pourquoi il filme comme ça pourquoi naa troxal la wàcc la te fekk yaa ngi def rek ngir xool wax lu rafet ma troxal la amoo autorisation pour ñëw fii de pourtant pourtant am film dafa garaaw de pourtant image dafa doy waar de. wallaahi dëgg la. mais barki yonti yàlla Mouhamad ñemewuma la wax wàcceel sa portable ñemewuma wax ne non non mënu ma wax te pourtant li ma war def dafa bëri ñii mën nañu xaar. dëgg la Ousmane wallaahi dëgg la. mais je pas parce que nag jaamu yàlla gi nga doon ak ku baax ki nga doon ànd ak yàlla yoo xam ne xaw ma ne xaw ma xaw ma ne sax na yàlla gërëm xam nga tey jii ngi nekk ci kër gi ñëpp Ousmane la ñu wax mm-hmm. te mun naa man li ma yàlla may ci fii rek la yem non dama lay wax rek. dama si Zahir laa wax si Zahir ku ñëw rek Ousmane ngay wax. mun naa li ma yàlla may sax man maanaam ci baatin xud bi wala ku yàlla gërëm dëgg-dëgg. ku yàlla gërëm dëgg moo leen gën a ñàkkal fer ci jotaay bi moo gën a moom moo gën a oyof ci jotaay bi te kenn dawul ci moom. te man mii ñëw nii man di ñëw nii. mun naa affaire àdduna laa yor kenn xam xaw ma. man daal foog ñu oyof. macha suñu borom. yal na yàlla ñëpp am jàmm. yal na yàlla suturaal nit ñi. sit yi teew yëpp yal na yàlla màggal leen. ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam. nga politique. il faut gars di ko defee ci beneen anam. il faut gars yi defee politique di di jaamu yàlla. man loolu laay oo suñu mbokk politiciens yi. gis nga yàlla mooy fal. alal falul. dama la jox benn exemple Kaolack yëpp amul fu ma deful teraanga. dëgg la. bien vrai que tey président tànnuñu ñun. bëggoon naa nekk maire Kaolack. wala nekk Diène Farba Sarr. ñu jiital Diène Farba Sarr. président ba mu defee lu ko neex ndax mooy ndogal mooy suñu président mooy suñu njiit jiital na moodu Ndiaye Rahma. ba mu jiitalee Modou Ndiaye Rahma kenn mënut a toog ci der di xas yàpp. lu ñu yor kas néew di si dimbali jaay mi ngi jaar ci président. ñu ñu boole lu ñu neex lu ñu naqari dem ànd ak Modou Ndiaye Rahma waaye ànd bu sincère barki yonent Yàlla Muhammad bëggoon Modou Ndiaye Rahma gañe gañe te man defal naa teraanga ñëpp ma ootee ne Modou Ndiaye Rahma laa bëgg ñu votel ko man ak moo Ndiaye Rahma dañoo boole ñu ne la suuf kon kuy fal. <laughs> est que Modou Ndiaye Rahma amul xaalis an sama teraanga yi an sama social bi ana nit ñu ana ñi ma ko doon jox kër gaa ñuy fees ba est-ce que dàq naa nit ñi ñi